la ci yalla xol moy mujj ga ma aadama li nga def lu mbax bax bu tax sa xel dal karal rek mujj mujj mo am solo motax tax diko di ko ñaan mujj gu rafet so mujjé lu ñaaw man na yaq la nga defon lepp manam mujj gu ñaaw gog man na waral borom jaar safara dina du fa sax hmm. su mujjé lu rafet man na defar la baxon lepp la ñaawoon lépp ca gannaaw mu defar ko kooku borom dugg aljana yonentu ji ñu ko ci beneen xadis ne kullu naasi yaxdu fa baaiu nafsuhu fa muntiquha aw mubiquha danañ ko jàng nee na nit ku xëy dana jaayanteeg bakkanam fexe ba goreel ko musal ko si safara wala mu arak ko dugal ko safara loolu loo ci déggee mooy su fekkoon ne jëf yi doo xam ne bis bii nga xëy si nga man a alag sa bopp ba dugal ko safara wala nga mën cee goreel sa bopp safara musal ko safara daf lay wan ne bis boobu ngay dund ci ngay dugg aljana ci ngay dugg safara kon bul sukkandiku si jëf weesu teel bàyyi xel suba ndax fekk suba baaxagul rek xamagoo dara baax na am déet hmm. bàyyi wax si lu raglu Neneng nañ gu ñaaw moy nga dem bay génn àdduna sa xol bi lu yalla nek ci lolay mujj gu ñaaw mhm. ana bi abdurahman jere nañ ci baye abdurahman abdullah bun mas'ud te mooy abdullahi doomi mas'ud radiyallahu anhu yalla yalla gërem ko qala wa na bun mas'ud ne mhm. xaddasana waxtaanal nañu rasulullahi yonent yàlla bi salla yàlla doole xewal allahu yàlla alayhi si moom wasalama doole musal nee na yonent bi waxtaanal nañu yàlla na ko yàlla doole xewal musal ko woo moom yonent boobu asaadiqu mooy ji dëggu almasduqu mooy ki ñu dëggal yonent mooy ki nga xam ne du wax lu dul dëgg lu mu wax rek dëgg <laughs> waaye mooy ki nga xam ne yàlla si moo ko njëkk a dëggal andil ko waxyu waaw ne ida jaaka al munafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallaahu yaalamu innaka la rasuluhu yàlla xam na ne yow yonentam kon yàlla ko dëggalal ne moom yonentu la wa kafa billahi shahidan seede gi yàlla seede ne yow rek la ngay wax dëgg la yàlla wax ko loolu doy na kon moom yàllaa ko njëkk a dëggal moom yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw ba nga xamee ne moom du wax lu dul dëgg waaye la waxit yàlla dëggal na ko moom ci boppam it mu dëggalaat gannaaw ba mu dëggalee jullit ñëpp dëggal ko benn jullit du sukk du sikk sàkk mukk ci lu yonent wax sallallahu alayhi wa sallam ku nattu rek mu nar a ku mooy sikk ci lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax de waaye ab julit du sikk mukk ci lu yonent bi wax alquran wax na ne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muminuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi yonent bi moo njëkk a gëm li yàlla wàccee ci moom kon moom moo njëkk a dëggal boo xam de dëggal waxyu gi nak noonu yàlla nee na jurit ñi dëggal nañ xéeféer yi weddi sax añaan rek ak soxor dëgër bopp moo leen tax di weddi waaye dëggal nañ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñépp xam nañ ne ak yonentu la de kon mooy ki dëggu mooy kuñ dëggal koo xam ne ku dëggu la du wax lu dul dëgg yàlla dëggal ko mu dëggal boppam nit ñi baax ñëpp dëggal ko ay noonam sax xañaan leen jàpp rek waaye dëggal nañ ko kooku buy wax waxam jar naa déglu de lan la yonentu boobu wax mu ne inna ahadakum naka kenn ci yéen yujmau danañ dajale xalqu bindam fi batni ummi ci biir yaayam arbaina yawman ñeen fukki fan nutfatan mu di toq ma niyu hmm. doomu aadama bu nekk rek waaw bu dee jigéen yàlla wakil na ruxum ruxumam maanaam biiram ab malaaka malaaka boobu bu demee ba si kanam ba soxla ab mën niyu mooy ñaan yàlla na ko yàlla mut fa toq mën niyu toq mën niyu bu ko defee su ñaane yàlla rek yàlla def borom këru góor gi xelam nekk ci ndaw sa ndax yàlla koy taaral ci ay bëtam bu ko defee ndaw si noonu ah ñu daal di jotee buñ jotee buy mën ni wàcc rek malaaka baa koy dogandu daal di ko téye ko defee nag laaj yàlla ndax danga ci bind su dee du ci bind mu seyal ko benn yoon bu dee dana ci bind nag mu tasaare ko ci yaramu ndaw si yëpp dégg nga ba ci karaw yeeg weeyi fépp lay tasaarooyee gannaaw ga nag mu di ko dajale di ko dajale ba mujj dajaloo daldi nekk nag ak lumbu deret hmm. jamono boobu nag digg bi bi muy tasaaroog ba muy dajaloo bay nekk lumbu deret mooy nekk ñeent fukki fan hmm. dégg nga hmm. digg boobu mooy mat ñeent fukki fan de. moom lay wax ne yonentu ne inna ahadakum naka kenn si yéen yuj moo danañ dajale gis nga mën yi bi dafa saaroo ci yaram wi ba ci karaw geeg weey yi fépp su ko defee nag mu di ko dajale di ko dajale di ko def ci ruuxum gi bu yegg bu ñeen fukki fan yi man rek lépp dajaloo ci ruux biir jigéen ji su ko defee mu daal di nekk ab ab mu deret mm. loolu lay wax ne danañ dajale xal xalqoo mbindam fi batni ummi ci biir yaayam arbaina yawman ñeent fukki fan nun fatan toqam man yu mm. su ma yekkoon topp mu nekk alaxatan lu mu deret misla zalika comme loolu bu dajaloo ba ci biir bi nag mm. mu daal di nekk toqam man yu mu daal di nekk mu deret mm. lu deret boobu dana ko nekk ñeent fukki fan moom su ma yekkoon topp mu nekk mu daxatan ab suux misla zalika comme loolu mel ni ab suux buñ sàqar be moom it dana ko nekk ñeent fukki fan kon mën yi mu ñu dajale di ko yóbbu ci ruhum gi diiram ñen fukki fan la gënaaw ga mu nekk bu démé ba ci ruhum jigen ga am biirab jigen bu mu nekk lu mu dérat ñen fukki fan gënaaw ga mu nekk suux ñen fukki fan loloy lan loloy ñent wër ndax wër fan bu muy ñett yoon loolu mooy ñetti fukki fan ba mi ñetti yoon ko koy weer kon bu nekké suux nak day yok ci biir suux gogu daamaare yax ak yoyu ci biir ñen fukki fan nak bu ñen fukki fan yoyu jeexee da ngay gis nak mu nekk do doomu mo bu mat ñi war ci dal di sol ruux nak dégg nga moo mu ne su muy sol top ñu yoni ilay jëm ci mom al almalaku malaaka ba hmm. fayen foq mu wal fii ci moom aru ruu de malaaka mi nga xam ne moom la yàlla bàyyee biirëb jigéen ji gannaaw ñeenti weer yi ci la ci wal ruuxu moo tax doomu aadama ñaareel jigéen su ëmbee ci ñeenti weer yi rek bu matee ci doom ji commencé yëngatu hmm. ndax foofu lañ ci defee ruux hmm. lu njëkk loolu du dara amagul ruuxu waye bu ci ruux gi duggé rek nga gis mu commencé jëngatu nank nank nak ñu dal ci war ruux dé muy mag ak ruux gogo ba mat yalla génné ko muy benen mindeef di xalé bu ndaw bo xamné mu dara lepp dañ ko koy defal dem ba ci karam mu nek xalé bu goor bu dëgër tuuti dem ba ci karam mu nek waxambaane bu dëgër yalla may ko carton may ko daraja may ko lu ne. su ko defee nag bu ko yàlla natt nattoo dafay jàllal bu nag di xuloog yàlla na ko yàlla maa la ëpp xel li nga tëral fii waroo koo tëral alquran caaxaan la xadis ay wax rek la ay naxe la mbir mi nii la war a demee naa la demee kooku ñàkk na sens ndax mi nekk ci moom yàllaa ko def ci moom yàlla mi def ci moom xel moom nag mënu ko ëpp xam-xam de xam na loo xamut kon buur yàlla lim tëral rek nañ nangu hmm. rawatina li aju si wàllu dogal hmm. sirul qadr kenn mënu koo xam hmm. dogal bu yàlla dogal rek am na secret boo xam ne ni moo tax mu def ko secret boobu boo ko xamoon da ngay xam ne mbir mi nii rek la war a mën a demee de nu dul nii daal jubut lii yàlla def daal mooy lu jub secret boobu na yàlla def ñu ko nëbbu doomu aadama nag yàlla may ko tuuti xel. mu war a sant yàlla ba mu gënee bàyyi ma ndax ñoom ay nit lañ yoo ay ay ay ay yàlla lañ yoo xam ne ci mbedd mi la fanaan di faraatu lekk dégg nga yàlla mooy leen xewal gi mu defal doomu nga xam ne nii toujours rek day war moom doomu aadama fu mu jëm day war wutal ko lal bu muy tëdd mm. waaw tabax bu ko tiim di ko fegal tàngoo rek waaw sedde hmm. yére yu koy suturaal ay awraam hmm. Hmm, dégg nga ko ay soxna ñu di ko toppatoo ak borom kër goo xam ne dana ko toppatoo moom it bu dee jigéen di ko joxe dund ki dépasse di daw si ay soxlaam wutal ko ay waajur yu ko toppatoo dégg nga waaw may ko xel mu law moo xam ne danañ ci mën a xalaat mën cee defar lu baaxal àddinaam ak àllaaxiraam daf ko muy war boobu génne àddina moom doomu aadama dafay war danañ ko teg ci tàdd ba dugg ci bàmmeelam nag bu duggee ci bàmmeelam fa lay waree war gu faw wala mu foolee ko fa foolee gu faw de hmm. su fekkoon ne nangaloon na yàlla mi nga xam ne nii waaw def tàggatal na ko mboole mbindeef fi hmm. ba ci asamaan suuf tali yi oto yi usines yi weñ yu ñuul yi portable yi lépp daal yàlla tàggat na ko ngir doomu aadama hmm. mu di ko xewaloo di ko jëriñoo wa saxara lakum maa fi l-ardi jamii'an yàlla tàggatal na leen lépp lu nekk si suuf si mu di buur moom doomu adama ci kaw suuf su fekkoon ne nangul na yàlla moomu xam ne moom ba lépp nekkee waruwaayam li ko war moom doomu aadama mooy mu nekk waruwaay yàlla ni yàlla tàggatee lépp ñeexal waaw doomu adama doomu aadama li ko war moom mooy mu tàggatu ñeexal yàlla moomu hmm. bu fekkoon ne seetlu na loolu. te nangu naa nekk war waay yàlla boo xam lu ko yàlla teg rek mu mu tegoo ko daal di ko nangu comme ni nga xamee ne saw fas loo ko teg rek mu teg oko te mbindeef la ni yow doo boromam bindoo ko moomoo ko waaye daal yàlla ko dénk rek nga mën koo sëf lu ne nekk ci kawam ne jogg nag muy daw léeg nga jëlab yar sax dóor waaw jëlab laxab def ko ci gémmiñ nga di xëcc ko koñe su la neexee mu taxaw su la neexee mu dem ngay lekk waaw ay misuweek yi waaw lekk yu neex di ko jox ay ngooñe nangam dégg nga teewul nag fas wi nangul la rek de su fekkoon ne seetlu nga loolu yow it ba nangul yàlla lum la teg rek nga tegoo bu mettee nga nangu comme ni nga dooree fas yu mu nangu bu neexee nga sant yàlla waaw bis boo duggee sa bàmmeel da nga war war goo xam ne dootoo follee ko ci bu mukk ndax jëf yu baax nga doon def dañuy soppeeku jëf ju melaw rafet nga naan ko ay waay maa la bëgg ndaw sa xet a neex jege ma mu naan yaa tax a jug yaa doon jëf maa doon jëf yu baax nga doon def ci àddina yàgg naa laa war ngay nangu tey nag kaay war ma ndax jëf yu baax yooyu coono yooyu yàgg naa tegu sa kaw nga daal di nangul yàlla tawatoo di nga too waaw di góorgóorlu di muñ rek kon nag tey jëf yu baax yooyu dañuy soppeeku ñoom it waaw melawu rafet nga di ko war boo ko waree nag muy naaw ak yow di xéwaloo yow ci meññi aljana yi nga di ci waaw nga di ci xéwalu rek la wax de wala daal. jëf yu baax yi moom yàlla dana ci defal xéwal gu ne ci sa biir bàmmeel boo war dootoo follee ko ci bay laa yemi diin noonu ngay waree ba boo dekkee ñu dugal la aljana nag nga xamante lal boo xam ne guddee na ni diggante suuf ak asamaan soo bëggee war rek mu daal di góor mel ni gëlëm waaw nga war mu daal di yëkkati ko nag lal yu kawe noonu ngay am foofu àlaaxira de waaye su fekkee yàlla def na lépp muy war waaye ñeexal la yow doomu aadama nga war koo fayee nekk war waaye ñeexal ko looy wax yàlla war a tax looy jëf yàlla war a tax lu bëgg nga daal di bëgg lu bañ nga daal di bañ jëlee wuti naag sa xalaat nangul ne xalaat eh, xam-xamam yàlla moo ëpp sa xam-xam mënoo koo kon nga nangu ne yàlla bëgg mooy lu rafet de soo nangoo loolu waaw mucc rek de war bay laa yu mi diini soo nanguwul loolu nag boo duggee ci bàmmeel bu ko defee jëf yu bon yi nga doon def lañuy ñuy soppeeku mbindeef bu bon bu raglu xet xet gu bon la yore bu ñëwee rek nga naan ko sori ma maa la jëpp ak yaa naqari xet mu naan la tey ma war la maa doon jëf yu bon yi nga doon def ci àddina yàgg nga maa war di bànneexu rek faale woo yàlla ak ak yonentoom tey nag ma war sa kaw rek laa daal di ñëw rek war sa kaw. di leen un mbugal rek bay laa yomi dini nga dëkkee noonu su boobaa moom foofu ngay folle ko dootoo warati ba faw boo fa jugee dem ci safara safara warta kaw jiit yeeg jaan warta kaw di la matt malaaka yi di dóor yàlla nañ si yàlla musal rek laa wax de xam nga ne mbugalam àddina rek at noo ko yow doomu aadama waaw dégg nga bopp bi xawlaa sonal li la jaaxle ay yoo rek mën a naxal sa dund ku yow mën a naxal su dund nag xattoo ji xattanoo jiite ki jaan yoo xam ne ni buñ la màttee da nga ji dana dana la toppal toon ne ñeen fukki waaw at rek laa wax de attanoo sawara waaw attanoo yari malaaka yi da nga da nga koo gisagul rek waaye attanoo ko ndax lu ndaw ci àddina mën naa naxal sa dund kon nag xattanoo jahannama de fexe loo man ci daw ko ci nangul yàlla nga def ko su neexoon yàlla mu jël santaane yëpp teg ko sa kaw waaw te du tàggatal dara hmm. waaye yow doomu aadama yàlla daf laa tàggatal lépp kon na nga war a nga war waaw ñeel borom boobu laa wax dégg nga su ma yor saluñ yoonu dem ci doomu aadama dem ci doomu aadama bu wal mu wal fii ci mu ruuxu ruuxu hmm. daal ko génne wayu maru danañ digal malaaka boobu bi arba kalimaatin mu bind ñeenti baat bi kat bi risqi mu bind wërsëgam मलाक बहुत सबीरु याय दन बिन्दस वर्षक ने दिव दोमी दिवक दिव शिबीरिन डैम दन फुदुंदे ली अगली वर्षक वो फाउस याय दन को लेकं मुंह डाल ली जार्ची बुटी दुंजुरेल भी बुटी भी वर्षक भी दुंजुरेल सी आऊंगा जरिन वाची बोगे ने वर्षक वो याल दन को लेफ meew ci sa weenu yaay nga di ko nàmp mu wutal la ci yére ak mboolem wërsëg wu yàlla dogaloon pour yow rek boo juddu rek mu jëlee dikkal comme nu ko yàlla dogalee hmm. wërsëg wi nag lu nekk dafa am waxtu ak heure waaw ak jamono waaye lépp yàlla dogal na ko de moo tax yow doomu aadama hmm. boo doon daw sa wërsëg comme ni ngay dawee dee sewer dana la comme ni lay dee di dikkalee dee mooy li nga xam ne saa su nekk doomu aadama yaa ngi koy daw waaye moom it saa su nekk mu ngi dajeeg doomu aadama yi de fa nga daw jëmali ko rek fa la dee nga nekk waaye wërsëg it saa su nekk dana la dikkal ni ko yàlla dogalee woon ci yow ak ni mu ko bindee woon ci yow yow doomu aadama yàlla jagleel na la ñaari biir benn biir bi mooy sa biir a bopp beneen biir bi moo di bàmmeel sa biir bopp hmm. yàlla laaju la lan cay def laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka laajuñ la wërsëg ñun ñoo lay wërsëgal sa biir a bopp la ci war a dugg yàlla dana ko ci def biir bàmmeel nag moo la war a yitteel ndax loo ci defut doo ko fa fekk rek la wax de kon wërsëg yi yàlla bind na ko mbul rayante ngi teg bul jokk nit ngir wërsëk bul dagg nit ngir wërsëg bul def lu ñaaw ngir wërsëg yonentu waxoon na ne ruuxul wax yu ne ma ne ma bakkan du dee mukk te wërsëgam matut kon waxal nit ñi ñu ragal yàlla te wut wut bu rafet rek nañ wut wut bu rafet mu wax ne wërsëg wu yéex bum leen taxa mooy yàlla ndax li nekk fa yàlla kenn du ko am lu mooy ci topp ko mm. du def lu ñaaw mooy tax nga am ko de sàcc bi sàcc sax dafa yàkkamte waaye bu teewoon rek buy waxtu woowu di jot loolu ñëw ci loxoom ndax wërsëgam la de kon wërsëg woo xam ne yàlla dogal na ko ci yow ba pare bu ci taqal sa bopp ci bakkaar boo defee bakkaar teewul yàlla dogaloon rek mooy ñëw lu yàlla dogalu toon du ñëw dégg mën ngaa def bàkkaar xam wërsëg wa muy wërsëg woo xam ne boo teewoon mu ñëw nga am ci tiyaaba yow nag nga def lu bon mu ñëw ba pare nga am ci bàkkaar mu toroxal la loolu jarut ko yàlla bind na wërsëg yi de waa ajil ak diiram doomu aadama bu nekk fan yi mu war a dund yàlla bind na ko démb ci malaaka bi ñu jox ko ci ndigal mu bind ko ci biiru yaayam te boobu mu ngi am ñeenti weer ñu bind fan yi mu war a dund kon bu ragal dee ba tax ngay teg yàq yàlla bu ragal dee ba ngay def loo xam ne yàlla bëgg ko gërëmut ko rek laa wax de kenn mënu laa rey te waxtu jotul waaye kenn mënu laa dundal bu sa waxtu jotee walan yuaxira laahu nafsan ida jaa ajaluha waaw yàlla du bàyyi benn bakkan mu dund benn waaw ceer benn euh, waxtu su diiram jotee rek de buy diir ba jot mu dee waaye bu jotagut bu àddina yëpp daje woon pour rey la mënuñ laa rey kon xawma ma ñaar ñii ki ci gën a dof ku jug ne dafay rey bakkan boo xam ne waxtoom jotagut ak ku jug ne dafay dundal di xettali bakkan boo xam ne waxtoom jot na de ñoom ñaar xaw ma ku ci gën a dof waxtu daal bu jotee rek borom dee kon dalalal sa xel ci sa dund. xamal ne bu bu jeexagut du jeex ba mukk santaane yi yàlla sant daal nekk ca waaye waxtu woo moom yàlla rek ko xam de buy jot nga dee mënoo ci dara bu jotul nag kenn mënu laa rey bu waxtu woo jotee yàlla mën na koo jaarale fu ne mën na koo jaarale ci feebar mën na koo jaarale ci xiif mën na koo jaarale ci accident mën na koo jaarale ci loxob doomu aadama mën na koo jaarale fu ay ndongmentu lu ne waaye nag dafa fekk waxtu waa jot rek de du loolu loolu sabab la rek waaw waaye dafa tombeek ndogal yàlla te ndogal yàlla dara mënu koo fanq kon doomu aadama bu nekk ba muy am ñeenti weer yàlla bind na ñaata fan lay dund diw doomi diw lii la war a am ci wërsëg ci àddunaam bëri pexe du tax mu yokk néew pexe du tax mu wàññeeku lii la war a dund dara du tax mukk dundam jeex. te waxtoom jotut dara du tax dundam yokk te waxtoom jot waa ak jëfam doomu bu nekk la mu war a jëf ci àddina yàlla dogal na ko muy lu baax ak safaan ba yëpp danga ko def wallaahu xalaqakum wa maa taamaloona yàllaa leen bind bind la ngeen di jëf diw doomi diw heure sàngam waxtu sàngam dana jëf nangam dana wax nangam ni koy yàlla bindee woon yow doomu aadama mënul laa rëcci waaw waaye nag su jëf ji baaxee santal yàlla bu bonee bul ne yàlla ko dogal rek tuubal rek nga jéggalu rek waaw ndax tuub goog jéggalu it waaw ci jëf yi la bokk de jëf yàlla dogaloon ci yow bu la yàlla naree mbugal nag daf lay dimbale ngay jëf jëf yu baax. bu la yàlla naree eh, dimbale muccal la ci mbugal daf lay dimbale ngay jëf-jëf yu baax bu la naree mbugal nag ah dafay dogal ci yow jëf yu ñaaw rek laa wax de teew nag léegi-léegi yàlla dogal ci nit ki jëf ñaaw ba pare ah mu jëm daal di baax yàlla rek a xam waaye daal tuubal bul ne yàlla def wasaqiyun mu bind ndax kuy texaadi la aw saayidun wala kuy texe ñeenti weer sa biiru yaay malaaka bi bind na ne yow aljana nga jëm wala safara nga jëm kon loo ci man ñaanal yàlla rek te yaakaar ko ndax buur bu baax la waaye ñeenti weer si biiru yaay daal yàlla bind na yow mii ci ñooñ aljana nga bokk wala ñooñ safara la war a dugal aljana foo nga def ko la war a dugal safara foo nga def ko kon nit ki bu amee ñeenti weer ci biiru yaayam yàlla bind na wërsëgam bind fan yi mu war a dund bind jëf yam war a def bind ndax kuy texaadi la sawara la jëm wala kuy texe la aljana la jëm yonentu ne fa wallahi maa ngi ci yàlla alladi mi nga xam ne laa ilaha amul benn buur yàlla xayroo kudul moom maa ngi ci yàlla mi nga amul benn buur budul moom inna ahadakum naka kenn si la yamalu dana jëf بعمل إيه؟ أهل الجنة جفوا الجنة حتى ما يكون بنكت بينه ديغنتم وبين ديغنت الجنة إلا ذراع المي بين قصبه فيسبق مج فيسبق مدال الجيت عليه مم الكتاب من لغة الله فيعمل مجف بعمل إيه؟ أهل النار جفوا وسفر فيد قلا مدقه واجو رجلوني يرون تنينا نيد دنا جف جفي والجنة zaahiru xadis bi lañ cey déggee mooy kooku jëfam ji jëf ju baax la jëfe aljana la waaye jëf jooju tax na mu jege aljana ba nga xam ne lu tol ni xasa bu tàllal loxo bi rek dugg aljana moo des mu moo des ci dundam tuuti moo des mu mu dee rek dugg aljana waaye ndeke ndogal jiitoon na ne kii waa safara la bokk du dugg aljana ba mukk ah ndogal googu nag yàlla def koo nëbbu waaw su ko defee nag mu mujjee lu bon rek daal di dugg sawara rek de moom la ñuy wax ne innamal amalu bil xawaatim jëf yi daal mooy muj ga mujj gaa ci am solo lam doon def yàlla won nañu ne lu baax la jële moom yeneen bu baax la ci am waaye bu fekkee yàlla dogal na ci waa sawara la bokk yàgg-yàgg dana mujj def lu bon rek daal di dugg sawara loolu la nit yàlla yi wax ne bëri na waaw noonu bi yàlla boo xam ne mu ngi ci topp yàlla bëri na koo xam ne mu ngi jaamu yàlla suba ngoon lu baax rek lañ ko gis muy def fekk yàlla dogal na bu yàgg ne kii waa sawara rek la de kooku lay mujj teewut mën naa am lañ na mu mooy jëf jooju muy def nit ñi dañoo jàpp ne jëf ju baax la fekk du jëf ju baax ndax day ngistal di déggatu ah bu demee ba waa dee rek yàlla natt ko. mu daal di bon mujjee ko daal di dugg sawara waaye dal ni hadis bi waxee daal la feeñ mooy ne jëf ji moom jëf ju baax la woon yàllaa taxoon waaye ndogal ko jiit loolu tax mu moo ni ci ndogal jiitu ko teewut hadis ñëw na muslim andi ko nit dana jëf-jëfi waal jana ci lii ñi gis te fekk ci waa safara la bokk de ah kooku dafay mel ni moom xadis boobu dafay mel ni waa jooju jëfam moo baaxut ndax da doon gis tal muy déggatu xadis bii nag na muy waxee jëf ji baax na gaa waaye ndox la ko jiitu lu mën a xew daal bul sukkandiku say jëf bul ci weedu weedul ci yàlla mi nga xam ne nii ku yaatu yërmaande la ñaan mu yërëm la rek de sa jëf lu baax baax bul ko naw fàtteel. ndax amaana jëf jooju du jëriñ dara si digganteeg sa borom ndax aljana kenn duggut fi ci jëfam waye ku ci dug rek ci mana yalla ci nga ci duggé kon bul sukandiku ci saw jëf lol dal mo gëna hor tabul te bul critique yàlla lu tax nga wax na ne xam xam yalla ëpp na so xel kon bul critique de la solo ma yafalu wa mi solo nag am na ñoo xam bëgg rek nit ñi bañ a critique yàlla yéene ju rafet moo leen ci dugal tax na ñuy dugg ci wàllu dogal naan doomu moo jéem lii moo def nangam ak moo tax yàlla bindal ko bàkkaar bi mbugal koog yooyu yëpp wax rek waaye lu mën a xew ba xew daal mooy la nga jéem ak la nga xalaat ak la nga jëf lépp ndogal yàlla bu jiitu la ci yow mënoo ci dara waaye teewul nag duñ wax ne yàlla la forcé yow di dara in kay yalla moo jëfee jëf ji ci sa jëm joju jooju waaw dogal ko ci jëm jooju nga xamne jëm ji sañu see bañ dara teewul nak mo mbugal mo xewalal sekere nak bu tax mu dogale nonu lolou lañ wax sirul qadr Ken xamul ko luma yalla de lumay ne arifuni billahi yalla xamal na len tuti loo xam ne ñoom tax na ñu gën a mën a nangu loolu gindeeku ci daal waaye teewul sirul xadir moom yàlla rek a xam dëgg-dëgg ba na way kum na naka kenn si yéen lay amal dana jëf bi amali ahli naari si jëf waa safara xataa maa yakunu ba nekkut bay noo digganteem wa bay naa diggante safara illaa zira lu mooy benn xasabu fayas biq mu jiitu ali ismam alkitaabu téere ba maanaam ndogal ga fay amalu mu jëf bi amali ahli janati si jëf waa aljana fayet dugg ko mu ne nit dana jëf jëfiwaa safara di def lu bon rek naan sàngara mm, rey nit lu bon lu ne mu ngi ca dëkk ah dem ba nga xam ne li les mu dee dugg safara tàllal loxo rek moo moo moo moo nekk ci diggante bi maanaam tuutee res mu dee dugg safara ndeke ndogal jiitu woon na ne kii si waa aljana la bokk mu jëf-jëf ju baax daal di dugg aljana dégg loolu it xam na de ku bono bono bono bon bon ba ñëpp ne kii moom buy dee dugg sawara ba muy dee rek yàlla dimbale ko mu mujjee lu baax daal di dugg aljana de ndax ndogal yàlla ji toon ne kooku si soppe bi yàlla la bokk moom lay góor yàlla yi di wax naan bëri na waaw koo xam ne nii soppe bi yàlla mu ngi ci moo yàlla mooy koo xam ne yàlla dogal na ne kii aljana la jëm waaye dundam yëpp caay moo yàlla la ko feesal de waaye mu jëm moom aljana la jëm kon kenn xamut ki yàlla tànn kenn xamut ki yàlla nara mbugal yàlla rek ko xam yàlla amut fenn foo ko mën a takkee ba jeexal ko waaye li mën a xew daal jëf lu baax moo gën a xóor ndax yàlla yërmandeem moo ëpp meram bari luy nit di jugee ci lu bon dem defi lu baax loolu bëri na lool waaye kuy def lu baax mu lu bon loolu néew na lool ndax yàlla yërmaande moo ëpp meram de te yonentu ba mu wax yu mel nii ñaare su ko waxaan saxaaba yi dañ tax ñuy jëf mooy leen def leen kenn ku nekk yàlla def ko yombalal li tax mu bind ko bu dee aljana tax mu bind la jëfe aljana def lay yomb bu dee sawaraa tax mu bind la jëfi waa safara yomb dégg nga kon góorgóorlu rek ndax góorgóorlu googu rek boo ko defee bokk na ci luy wane na yow mii yàlla dogaloon na dogaloon na ne ci waa aljana ngay bokk de waaye nag bu na am yaakaar bopp hmm. maanaam bu loolu pexem yàlla xamal ne saa su nekk rek alkaane mën naa ñëw hmm. waaye daal ku nekk la tax ñu bind ko la yàlla yombalal fasanu yasiruhu lil yusra ak façon yassiru lil usra mu am xam na ñoo xam ne yàlla daf leen a yombalal jëfi texe xam ñoo xam ne yàlla yombalal leen jëfi texaade yàlla ñu yàlla boole ci ñu yombal jëfi texe tamay leen ñu texe yàlla buñ jaar safara mu toll ni misqaala dara yàlla yàlla boole ci ay soppeem adna ak laaxira in uridu il islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadis bi rawaahu nekk na ko al buxaari imam buxaari wa muslim ñun ñaa ñëpp nañ ko seen téere